ñu ngi leen ñaan nga nga abonné wala ngaa seetaan bi te bës bi dugalee vidéo nga mën di jot notification yi. alhamdulilahi alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyi rahma wa kaashifil وشفيع الأمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة بوكي jullit يتردي نكتي yi fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bool wal fajri fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi rekk maa ngi leen di booleeti juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan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 ci yaa ayuha yi nekk ci alquran yëpp tuddaloon naa la ci fukk fukk yëpp nekk ci suratu baqara tey maa ngi ci fukkeel bi ak benn fukkeel bi ak benn nag moo tëj suratul baqara di ayatu dayni di yaa ayuha alladina amanu ida tadaayantum bi daynin ila ajalin musamman yàlla de mooy wax ak borom jëy yi nga xam ne nangu nañoo jël seen jëya ne ko ràpp ci kaw suuf di sujjóotal yàlla yàlla mooy wax ak borom xar yi nga xam ne nangu nañ koo raxas ci njàpp waaye yàllaay wax ak boroom der yi nga xam ne der yaa nga kotomu te dara taxut koo kotomook ñagas lu dul ragal yàlla yàllaay wax ak borom bët yi nga xam ne ña ngi koy tuur di jooy ay ronkañ ngir ak bëgg yàlla sopp ko bu ñu demee ba lëndëm bi lëndëm ñuy wettalikoo téeréeb yàlla bi di julli di ñaan di jooy yàllaay wax ak borom nopp yi nga xam ne ña ngay xerewlu yàkkamti santaane gu bàyyee ko ci yàlla bañ jëf te yàlla gu daanu seen kaw bañ ba ko comme ni xerewloo ab baykat bu jël jiwoo gerte bi yëpp sotti ko ci suuf si weeru la mu taw bu déggee dënn ni mu koy xerewloo mel ni siise siise ba jiwoon toolam ba muy gerteem nga yëpp ci suuf saanam lu mat weer tawut mu toog a toog ba digg bëccëg mu téye wantaay ga di hupp rekk ne xanaa yéen yëgu leen tàngoor yu may yëg ñu ne ko nim seddee nii ak ngelaw lu neex li di hupp nga naan tàngoor fekk booba moom aw tàngoor war a xëcc niir ba yàlla ji taw rek lay xelaat moom lay teewlu moom lay xerawlu ñu ne ko ñu de dañoo sedde yàllaay wax ak nag boroom loxo yi nga xam ne lu leen yàlla jox ñu joxe ko ngir ak tabe waaye yàllaay wax ak ñi nga xam ne seen làmmiñ fu mu nekk ma ngay tooy ci tudd laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa xoote bi la yépp nag yàlla woo leen ko bëgg ñu jëriñu comme ni ab taw fu mën a sotti ndox rek dana nekk njariñ ñaal suusa fekk naa xoote gi mi ngi ci nammu rek ñu jariñu njëriñ ak ka masali xabatin anbata sabaa sanabila fi kulli sumbulatin miatu xabatin ndax boo seetee xoote bi nag dafa am xoote yu ko jiitu woon yu ko jiitu yëpp dañoo bokk kolewu boo ko seetee amoon na woote bu ko jiitu boo xam ne suñu borom mi ngi ci doon santaane ñi dundalee halal yaa ayyuhaa allaziina aamanu anfiqu min tayyibaati maa razaqnaakum dee leen joxe lu lew moom laa santaane ci ngeen ma mën a jaamoo mu waxaat ne yaay wala si am laa tubtulu sadaqaatikum bil manni wal azaa bu leen yàq li ngeen joxe mu waxaat tamit yi muy tere yaay wala si am laa taakulu riba yépp mi ngi jublu ci xalal waaye yaay wala si am isaa daayantum bi daynin tamit mu jublu ci wàllu jëflante yi fekk yonentu dafa fekkoon madinatul munawwara ñi daan li jëflante lu ñu tuddee salamle salamle mooy jox nit ki xaalis mu war la indil marchandise ci ab diir boo xam ne ci ngeen ko bokk faslante te mu nekk lu war a gaaw balaa marché yaa soppeeku booba da ngaan gis koo xam ne dafa joxe téeméeri junne bëgg ko ko indil tàndarma mbaa mu joxe téeméeri junne bëgg ko ko defal ceeb wala mu defal ko ko mboq mbaa mu defal ko ko dugub yooya lañ daan tuddee salamle yooyu moom lañ daan def su ko defee nag dafa ci daan bëri ñoo xam ne dañ daan joxe xaalis di xaar ñu indil leen dugub mbaa ñu indi leen ceeb mbaa ñu indi leen tàndarma ña ko joxe woon weddi ko ne joxooñu dara coow nekk ci ñoom waaye booba tamit daanañ jëflanteeg leble leble goo xam ne dafa daan diire ay xat ba mu ñëw Madina dafay fekk meññant yi tabaarakallaahu lu mat koo xam ne dafay leb meññantam ñetti xat ci kanam mu nekk nag ne ko boo demee ma jox la alal ji sa tool bi lu meññ ci at mi nga jox ma ko ak bi ci tegu ak ba ca tegu xat xam nga loolu kenn mënu koo xam xam nga loolu baaxut المدينة من نبي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يستقر وهم وهم يستلفون وهم مانام موم يونتو يستلفون في الثمار سنتين وثلاثة فقال من أسلف في تمر آه فليسلف في كيل معلوم ووسن معلوم إلى أجل معلوم waaye waaye képp kuy lebleeti mbaa ngay leb ci tàndarma lebal ci natt guñ xam lebal ci màndaxa guñ xam lebal ci diir buñ xam mu daan fekk jaahiliya yi daan jaaye yàppu gëléem gu taxaw nii ñi koy jaaye yàpp gëléem goo xam ne dañ koo ëmb mën naa laa jox sama gëléem gi su ko defee doom ji sa gëléem yi ëmb boobaa nga jox ma ko yonent bi tere ko su ko defee kon nag jëflante yu ñaaw yi la fi fekkoon mu commencé nag di tere par benn ci la natt gi ci ci ci leble ji tamit bu fekk ko dina nettale par benn mu wane na nag aaya ji ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla mu yaay wàllis na amanu waaye waaye isaa sa daayantum su ngeen nammee jëflante ci bor su ngeen nammee leblante bi day nin ci bor ilaa ajalin mu jëm diir musamman ba de buñ tudd mooy mooy diir buñ xam faktu boobu su ngeen nammee jëflante ci bor mu jëm ab diir la diis ci weer wi fukki fan juróom ci weer wi weer wu dee faktu boobu bind leen ko ku koy bind mu ne wal yaqtub baynakum kaatibun bil adli bind kat bu maandu na ko bind te mbind ma teg ko ci maandu wala yaba kaatibun an yaktuba kama allamahu llah kay bind tamit bu mu bañ a bind li nga xam ne moom la ko suñ borom bi xamal fal yaktub na bind wal yumli llazi alayhi alxaq ki yore xaq ja moom di di di di mooy naa bind yow ngay fite su boobaa xam nga man su ma yokkee doo nangoo wax nga ne déedéet bul bind doo la su ma wàññee soo waxee tamit nga wàññi du ma nangoo bind kon yow mi war a fay. del wax man mi ñu war a fay may bind man mi la lebal naay bind yow mi ma leb ngay tudd may may bind buñ paree nga xool lañ bind ma xool ko ñu tolloo nekk nga signé ma signé nga amee këyit ma yore këyit moo tax mu ne wala yabxas minhu shay'an moom mooma nag bu mu ca wàññi dara fa in kaana zi xaq su fekkee ki nga xam ne moo war a fay xaq ji dafa nekk sa fi han di ko defe yembul aw fan mbaa muy ko lompañ ah aw laa yastatiu an la wala moom sax mënul fite ndax muuma la wala amee na gàllankooru wax huwa moom fal yumlil waliyahu na ko kilifaam gi wuutu ca fite ga te teg ko bi nga xam li ci maandu bu leen caxem waaye wastashhidu shahidayni min rijaalikum xut leen ñaari seede yoo xam ne góor la ñuy doon comme yéen ñëw seede ko moo tax yow nga wax ma bind doyut dañuy wut ñaari seede yu seede yooya ñu ne ko bu ñu xamul ñaari góor mu ne fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun wa imraataani comme ci xàllal la daal pour leen génn góor ak ñaari jigéen mi man tardawna min ash-shuhada ñoo xam ne gërëm ngeen seen seede ndax maandu nañ lu tax yaw yàlla au lieu que ñaari jigéen mu ne déedéet jigéen fa gaaw a fàtte damaa bëgg an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al oxra damaa bëgg kenn ka bu fàttee kenn ka fàttali ko góor a ko dàq a takk waaye mu ne seede yi buñ bañ isa do isa ma doxoo buñ leen wooyee ne leen ngeen seed joxe na ngeen seede woon buñ bañ buñ leen ne ñëw leen ngeen seede buñ bañ ndax loolu xàq la ci jullit bu ne war ko defal moromam wala tas amoo bu leen yokkat an taktuba wala si ngeen di bind bor ba saxiran aw kabiran lu mu tuut tuuti ak lu mu bëri bëri bind leen ilaa jëlee mu jëm ca diir ba lu tax yàlla mën a daalikum aqsatu indallahi moo gën a maandu fa yàlla wa aqwamu lishahaada moo gën a jub gën a mën a dimbale tamit ak seede yow bu fekkee yaa ngi seede luñ bi noon kay moo gën a yomb waa dinaa sa saabu moo gën a tamit jege ci ngeen ñàkk sikk seede luñ bi noon kay fa yomb amul sikk bu sikk naree am rek mbind ma ñëw waral ñu mu ne lu dul nag ak njaay goo xam ne da ngeen ko wëndaale jaay nga ma jënd nga fay nga jox ma sama mat di ko jërul seede jërul bind ndax nekk gi marchandise bi nekk ci sama loxo ak xaalis bi nekk ci sa poos mooy tekki ne jëflante ji tegu na si lu mu tegu moo tax mu ne illa an takuna tijaratan xaadiratan tudirunaha baynakum ko lay kon fa laysa alaykum junahun an taktu alla taktubuha jërut ko waaye nag wa ashidu ida tabayatum su ngeen di jaaylante man ngeen koo seedee jë bu ngeen ko bindu seede leen ko diw laa jaay sama kër gi su ko defee tamit maa ngi ko jaay fanweeri million ngeen juboo ca yàlla ne walaa yu daara kaatibun wala shahidun kay bind bu mu lor bay yokk mbaa muy lor bay wàññi kay seede tamit bu mu lor waaye waaye wa in tafaalu fa innahu fusuqun bikum waaye waaye yéen ñi seede mbaa ngeen bind su ngeen yokkee mbaa ngeen wàññi loolu génn topp la bu bon te loolu baaxul wattaqu laa ragal leen yàlla bu ngeen ko ragalee wa yuallimukumullah su ngeen yàlla yàlla jox leen xam-xam yàlla ma di joxe xam-xam nag lu lay waral yàlla mi daane aay moo lay daane wallahu bi kulli shay'in alim wallahi kiy joxe xam-xam doxal leen xam-xam ci ragal yàlla ko xamaa kon la yàlla ne bu ngeen nekkee ci tukki nag même bu ngeen ci nekkut xamu leen bindkat man ngeen a wut ak tayle loolu moo doon cosaanal tayle maa ngi lay lebal foo xam ne xamuñ ku ko bind wutal lu tolloog xaymaay li ma lay lebal ci marchandise nga baxi ko fa moo tax ma ne wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban kon nag fa rihanun maqbudatun kon nag nañu wut ak tayle tayle googa mooy tekki ne am na lu ma la jox boo liggéey boo koy xob bi indi li ma la joxoon soo ko mënta fay ma jaay ko jox lu tolloog la ma joxoon la keres ma delloo la ko jël la ma la ma la lebaloon la keres ma delloo ko bu ko manqué ma topp la la ca bu fekkee dafa caa xem képp nga dem ma dem من فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته بل له لونك بل بل آه تهوت تايل واي واي غوريل فخيل باغا جوخي لا نلو هولو وليتق الله ربه نرجال يالا مي برومم واي تيميت يين سيدي كدي بولن نبو سيدي ولا تكتم ولا تكتم الشهاده السيدي كين دوكو نبو يكتبها فانه آثم قلبه ku ko def rek sa xol bi xam na bàkkaar waaye na mucc ca xol ba jëmu jël lépp la waaye xol dafa gën a moo koy teewlu moo tax mu tudd ko wallahu ma taamaluna alim kon loolu mooy firi mi ci sëmb mu bëstal kon jëflante yi seede am na ci solo jëflante yi bind ko am na ca solo aaya ji moo gën a gudd ci alquran di traité bor Ibnu Abbas ne dafa wàccoon ci wàllu salamle moo ko taxoon a wàcc xaasatan ndax ahlul madina dañ daan salamle daan jëfandikoo nag waaye aaya ji dugalal na mbooleem xeeti jëflante yi dugal na contrat yi dugal na yéen ñay leb ca banque ñuy lebal dugal na jàpp surga dugal na maanaam sa emploi bi nga xam ne yaa ngi ko fas yéene embauché ko dugal na journalier dugal na takk soxna dugal na safe dugal na lépp luy xeeti jëflante rek ay doomu aadama di ko séq rek bëgg na seede bëgg na tamit maanaam ñu bind ko ndax doomu aadama yàlla lim tudd nit la tudd te boo jëlee naaf mi ngi bàyyi ko ci nasiya ji firi fàtte rek insaan mi ngi bàyyi ko ci nasiya comme ngaa gaaw a fàtte nag dangaa war a wut ku lay seede di fàttali da ngaa war a sukkandiku tamit ci mbind ndax lii ba ay ba aaya ji wàccee yonantu bi ne aaya ji de ki njëkk a weddi lu maye woon mooy seen maam aadama aadama da ko yàlla bindee dafa raay ca gannaawam ga la ca war a génn ci njaboot yëpp génn ca njabootam gi yëpp taxaw ci kanamam mu gis génn góor gu rafet mu laaj ne kii kan la ñu ne ko sa doom la daawuda mu laaj ne dundam moom ci kaw suuf ñaata at la ñu ne ko ku gàtt fan lay doon soixante ans rek lay dund muy juróom benn fukki at aadama xam yërmande ci sëtam bi de ne yow yàlla zid fi umrihi yokkal ko ci fanam wi waay guddalal fanam yokk ko yokkal ko xaala sama borom ne ko laa illa an aziduhu min umrika xanaa ma dollil ko loo xam ne ci sa fan laa ko jëlee danaa ko dolli ci sa fan de mu ne ko sama fan wi ñaata la mu ne ko junnee xat nga nar a dund mu ne kon jël ci ñeent fukk rek doomu adama xiir junnee xat lem koy am xet ñeent fukki fan la ci man a may sëtam bi mu ne ko daal mën naa koo may ñeent fukki xat bu ci dool dara de ñeent fukk rek fasaadahu arbaina aman yàlla jël ci junnee xati aadama yile ñeent fukki at may ko sëtam bile di daawuda moom mu xam téeméeri at maamam aadama xam junnee at xamoo lu dul junne junnee dërëm junnee dërëm nga xam ko sa lu dul juróom benn fukki dërëm nga ne ñeent fukki dërëm dong laa ko ci mën a may aadama nag di dund di dund ba yàlla dogal junnee at yu manqué ñeent fukk ah malakal mawti fëgg buntam ba ne ko yow laa jël si mu ne ko déedéet teel na bi defe naa ñeent fukki at bi maa ngi koy calculer bi mu ne ah borom bi sa waa ji neen dese na ñeent fukki at bi mu ne ko déedéet wax ko ne ko ñeent fukki at yooyu moo ko mayoon sëtam ba fekk dafa ñëw mu ne ko innahu baqiya min umri arbauna aman fa qiila lahu innaka qad wahabtaha li ibnika daawuda ñu ne ko yaa mayoon sa sa ñeent fukki at yi de daawuda de tey nga fanaan ni bàmmeel de mu weddi ko ne maa faaltu mayuma ko woon dara delloo leen ma sama ñeent fukk yi fa abrasallahu alayhim kitaaba fekk yàlla bindoon na ko da ko bindulu woon ci benn téere jàllal bi ko tamit seede la ko malaaka yi malaaka yi taxaw seede ko mu génnee mbind ma aadama amatul pexe keroog la fanaan ci biir bàmmeel moo tax kon aaya ji ne yaay war sina am isa daayantum bi day nin ilaa jëlin musamman ku ko def la daroon sa maam aadama dal la mooy nga miim weddi waaye bu mbind ma xasee taxaw seede ya taxaw rek lépp lépp yàqu kon li dal aadama bu mu ñu dal gis nga yàlla jëflante bu rafet da koo bëgg dafa yonentu baa ngi ñuy jàngal société sifaatul mujtama al islami nit nit ñi war a bëggantee war a soppantee ba mel ni génn jëmm xamul pet lu cay métti jëmm ja yépp participé noonu tamit la yàlla bëggee jullit ñi yëgilante ko ci seen bopp moo tax mu ne masalul muminina fi tawaadudihim wa taraaxumihim wa taatufihim ka masalil jasadi ida minhu udwun tadaa tadaa lahu saairul jasadi bi sëhri wal xuma aw kama qaal xadis la bopp muttafaqun alayhi la Buxaari yu muslim yëpp a ko indi kon nag mu ne jullit ñi nañ war a bëggantee war koo yërëmantee ñëwentexante ko dafa war a mel ni jënn jëmm rek xam nga ne kenn ku nekk ci ñun bu sa tànk bi méttee doo dem jàkka ja loxo ngay dimbalee nopp ya bët ya gisatuñ bu bët di métti tamit tànk ne dematuma noonu la yàlla bëgg tamit jëmm ji lépp maanaam lim participer ci benn cër naka noonu tamit jëmm jëlu cay métti ci sa morom tamit nga yëgee ko noona bu loolu xamul rek bëggante ga bu loolu xamul rek cofeel ga kon nag lislaama ngóog ak njàngaleem mu rafet na kon jullit lii nag boo ko yëgee da nga yëg ne boo xasee nekk jullit rek yow yow nga ñàkkoo lutax ñako ñàkkoo ku xam ko la dimbalé ñakato ta mbolém judd ñi ñoy ñoy sa mbokk lu dal ci sa kaw ci naqar ñepp la wara sotlé bu la ñak gané sé ñepp sotlé la bu la fébar gané sé ñepp sotlé la lolu nak moo tax fal muslimu laysa faqiran wa hunaka ikhwatun lahu idha ihtaja saaduhu kon nak ko xam ko la dimbale ñàkkatoo xam nga na fekkone société bi dañuy dund hadith bi kon doo gis benn jullit buy taxawaalu doo gis benn jullit buy sonn waaye balaa sa xol a gën a sedd sa mbokkam jullit nekk ci jafe-jafe yaa ngay gëstu sax ndax nekkul ci jafe-jafeem déet ba nga mën koo bëggee foofa yow da ngaa jënd carte membre l'islam rek waaye adhéré huloo wallahi abonné huloo de nañ ciy bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëggoon dimbalante Abu Saïd Xudri yooyu wax ba mu daan wax ne baynama nahnu fi safarin ma annabii is jaa rajulun ala rahilatin lahu ala rahilatin lahu fa jaala fa jaala yusrifu basarahu yaminan wa shimalan fa qala rasul sa man kaana maahu fadlu zahrin fal yuidda bihi ala man la zahra la yonent bi ne waay waay ku dese gannaaw gu ab jaamab yàlla sa mbokkam jullit mën a war waaye waaye dimbale ko nga waral ko ba xadis bay jeex képp ko dese yóbbal dimbale ko nga yóbbal ko waay waay loolu na daan jullit ma jullit ñu daan def ku ci xam jafe-jafe problème mu dépense problème mu tool problème mu foo liggéeyee problème mu feebar jullit ñëpp jug sotle la ba nga xam ne dootoo yëgati ak ñàkk ci sa kanam dem na bay ñaaxee ne gëmul yàlla ki lekk ba regg mbokkam jullitam yaa ngi xiif kon loolu baaxut Abi Hurayra mu ne benn góor ñëwoon ci yonent bi ne ko man dama sonn yonent bi yónnee kenn ci ay soxnaam bu ko defee yonent bi fekk waa ji dafa taxaw ci kanam na ko jaa rajulun ila nabi fa qaala inni majhudun إني مجهود موي أصابني الجهد فأرسل إلى بعض النساء يون ينتبه أني كن أي سخنام موي سخناي واجا وقد دفعي نك واجا فقال سخناتي نكو والذي بعثت بالحق ما عندي إلى ماون ndox rek ثم أرسل إلى أخرى فقال ila ukhra حتى قلنا mithla salika hatta qulna لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدف هذه الليلة هذه الليلة ولا من يدف هذا الليلة فقال رجل من أنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كون gis nga waa ji bi mu tawatee ak ñàkk ci yonantu ku mu yónnee rek comme ni ko daraa fi desut xanaa ndox ba soxna yépp daj yonentu bi jaaxle ne waaye ana kan mooy teral gan jile man yu diif haada allaylata kan moo may teralal kii ci guddi gi yépp benn góor ci lansaar ne ko man ne ko jugal ñi dem mu jël gan ak yonentu bi dem ci soxnaam ne ko teralal ma gan ak sayduna muhammad bi sallallahu alayhi wa su ko defee nag am na riwaaye bu ne dafa wax limraatihi hal indaki shay'un ndax xam na loo xam ne soxna si ne ko ah illaa quuta sibyaan yi xanaa dund ak sama njaboot ji rek a fi ah buñ ko joxee mu lekk du ah duñ xam luñ lekk de su ko defee tamit ah loolu la ko soxna sa wax illaa quuta sibyaan yi qaala fa alayhinna bi shay'in wa ida araadu al ishaa fa nawimihim wa ida daqala dayfuna fa at fi istiraja fekk moom dafay waxoon ne ko daal kon baax na dama indi lépp rek la nekk mu indi bu waxtu reer wi jotee mu ne ko demal nga nelaw loo xale ya bu gan gi dikkee nga fay làmp bi ñu bokk lekk moo mais ni ñu ngi lekk rek gan gi foo na ñu ngi lekk ñu bàyyi ko muy lekk rek billaahi saxaaba yonent bi baax buñ toogee rek fay làmp bi ñuy waxtaan rek fekk gan gay lekk rek moom tamit foo na ñeneen lekk rek fekk lekkuñu dara yeneen xale ñu jëlee leen ñu dem nelaw yi xoole loolu la ñu nekkee loolu la ñu nekkee tabaarakallaahu xamul kenn xamul la mbaax ak saxaaba yonent bi rek su ko defee nag falamma asbaha gada ala nabii fa qaala laqad ajiba allahu min saniikuma bi day fi kuma allay la ta bañ ba ba setee nag rek ndeysaanam aa waaje xëy ànd ak gan nga ñëwal yonent bi yonent bi ne ko xaay waay yow waajile seen jëf ji yàlla xiim na ko lool yaa sa soxna si ni ngeen de jëf ni ngeen jëflantee gan gi yàlla xiim na ko ci rafetaay bi te mooy ngeen fay làmp ba mel ni kuy lekkandoor ak moom bàyyi ko mu lekk ndax li fi des li fi nekk xaju leen ci yéen ñëpp ngeen jël xale ya nelaw loo ko indi loola dëgg-dëgg seen jëf ji moo rafet lii moom la daan saxaaba yonent bi daan dund ak seen mbokk yi lu ca waay ñàkk-ñàkk keroog nga jàpp ne tey laa gën a xoomal ndax ku xam ku xam ñàkkoo dara ki ñàkk dëgg mooy yoroo yoroo ku yor waaye boo yorut te nga yor ku yor ñàkkatoo dara moo tax ñoom dañ daan njëkkalante di kursu ci tàbbal mbégte ci xolab julit yonentu bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne man adxala ala ahli baytin min almuslimina sururan lam yarda allahu lahu sawaban duna aljanna mu ne képp ku tàbbal mbégte ci xolab julit yàlla du gërëm payoor ci yow lu dul mu dugal la aljanna rek noonu tamit mu daan ñi daan def tàbbal mbégte ci xolu jullit ñi lu ñu xam séddoo ko seen moroomi jullit ñi lañ daan defee tamit ku nekk ci njàqare ñi fexe ba yërale la njàqare ya ku ku ko am ne da ngaa nar sa sutura dafa naw xaweeku ñu suturaal la moo tax yonent bi daan ñaaxe ne man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa laahu anhu kurabahu min kurabi yawmil qiyaamati wa man yastara ala muxsirin yastara laahu alayhi fi dunya fi awni alabdi ma daama alabdu fi awni axihi buxaari yu muslim kon abu daawud a tirmisi ñoo génn ñoo solo xadis boobu kon nag ci ngay gisee lii lépp ma defaral lay taay ci ngay yëgee bor lebal le ni mu xamee doole moo tax dërëm bi nga leble ki ko aajowoo moo ëpp doole dërëm bi nga saraxe moo ëpp doole dërëm bi nga maye ñu ne waaw leble naka la mën a ëppee doole saraxe wala naka la mën a ëppee doole maye ñu ne booy saraxe yaa ngi saraxe rek booy mayee yaa ngi maye mais mën naa xam ka may la nga ko may sax amu soxla mën naa xam ki nga sarax la nga ko sarax sax amu ci soxla waaye nit moom du leb lu dul soxlaam koo gis muy leb rek lam leb xam na ci soxla moo tax yonentu bi ne keroog guddi giñ ma rañaanee damaa gis ñi bind ci buntu aljana dërëm ab sarax fukk la ko yàllay fayee waaye dërëm ab lekk yàlla nga koy fayee aa aa juróom ñetti téeméer man a jibril dërëm ab lekk naka la mën a xëpp doole dërëm ab sarax mu ne waaw waaw ne ko kaay ma wax la ko mu ne ko nag kuy laaj yaa ngay laaj rek kuy saraxu mbaa ngay ñaan yaa ngay ñaan rek mën naa am da nga dajee ñu jox la loo xamul soxla léeg-léeg gars yi sarax la béy wu làpp wala ñu sarax la ay yëriru ràpp wala ñu sax sarax la ndesit waaye nag kay leb moom la muy leb du leb lu dul xaajoom moo tax loolu ëppale ko moo tax yonoon tooy wax ne raaytu laylata usriya bi ala babil janati maktuban الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانمائة عشر والقرض بثماني بثمانية عشر سوق الجرون يقلى فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة لتخلو لمنك إن السائل يسأل وليس عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة حديث لبوك ابن ماجه أنس موكو صلو كون dërëmab saraxe fukki dërëm dërëmab leble yàlla dana ko fayee fukki dërëm ak juróom-ñett kon moo ëpp doole kon nag dee leen saraxe waaye dee leen leble ku la lebati lebal ko waaye ci condition kañ lay fay ngeen bind ko signé ko xutal ko seede waaye léegi nit ñu bëri dañoo ñeme yàlla koo ci lebal mu def ko moomeel ak boppam kon loolu lépp nañ koy bàyyi xel kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax am na solo ku yàlla dogal sa loxo jot sa naa na ngay yaatal ci sa njaboot na ngay yaatal ci ñu xaajowoo ñu at tawsiatu ala almuxtaajin siyaanatun li niama ndax loolu dafay ñoŋel sax xéewal gi la yàlla jox xéewal bu la ko yàlla joxee nga bëgg mu sax day ca dimbale néew ju doole ya yooyu noonu tooy wax de xamul benn jaam bu yàlla jox xéewal mu lëwal ko su ko defee di dimbalee xaajooy nit ñi lu dul ba yàlla na ko yokkal xëlëg muy gën di jëm kanam ku jéggal koo xam ne da nga koo lebaloon xamut lu mu la fayee nga jéggal ko te yàlla tax mën a laa yóbbu bu yowmal xiyaamee yàlla jéggal la say say rëcc rëcc kon nag borangoog ak doole ji ma xam doole moo tax alquran wax na ko sax yonentu nee na nga xam nag mën a fay téye xaq ja tooñaange la mutlul xani yi zulmun waaw waaw guddal koo xamee ne nii dafa xoomal mën a fay tooñaa ngi la de wa ida atbaa ahadukum ala maliin fal yutbiu fal yutbiu mu ne képp koo xamee ne nii dafa nekk koo xamee dafa ñàkk ah, yaa ngi xoomalal koo xamee na nii yaa ngi topp koo xamee ne nii ku xoomal la topp ko mu fay la ndax xam na lu mu fayee waaye nag téye googu mu téye xàq ja waroon laa fay tooñ bu rëy rëy la moom la yonent bi wax de mutlul ganiyi zulmun wa ida atbaa ahadukum ala maliin fal yutbiu fal yutbiu waaye mu ne tamit boo toppee ku ñàkk nag nga jégal ko moo gën wa in kaana soo usratin ci alquran fa nasilatun ila mashratin wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum taalamuuna loolu la alquran wax kon nag alquran a ngoog nañ ciy bàyyi xel tabaarakallaahu di jëflante jëflante yu rafet ndax xàq yàlla du ko neenal yowmal qiyaam yonent bi nee na gàtt bi nga xam ne dafa amoon béjjën ba a jay ko mu mu mbëkk baat gàtt ba xamul béjjën wallaahi yàlla dana ko xeñ béjjënam ya su ko defee tamit ka nga xam ne moo amutoon bëjjën mu jox ko béjjën mu fayu comme na mu ko mbëkkee woon yàlla dool ne def suuf ba xéefir ne laa yaa laytanii kuntu turaaban kon nag nañuy bàyyi xel tabaarakallaahu ci ci ci lépp loo xam ni war na ca loola nañ ci bàyyi bu baax a baax a baax a baax a baax moo tax kon wala si nafsi bi yadihi law anna rajulan qatala wala qutila fi sabilillahi suma aafa suma qutila fi sabilillahi maa daqala aljannata xatta yaqdiya baynahu yonent bi nee na maa ngi gën ci ki ne sama bakkan ci loxoom la ne nit a ngi nii koo xam ne nii dafa doon xeex ci yoonu yàlla bañ ray ko dekkilaat ko mu xeex bañ rayaat ko balaa dugg aljana foog mu fay borom ya moo tax kon bor bu caaxaan kenn du ko sàgganee kenn kenn ku nay bàyyi xel ci bor yi bala ngaa jéggi siran fay say bor dee moo tax ñu bëgg nit ki bu dee balañ koo suul ñi seet kan moo gàddu bàkkaar ya bu baax a baax a baax a baax a baax balaa nit ki nga gàddu nga gàddu bàkkaar ya su ko defee léegi ñu door ko mëna a non la laa yonent bi def bo xamul ko ko gaddu mëna jullee leen seenam neew néew nga xam ne ki xas dee daal manam toggatuñ ko dara ah am nañu ko gaddu ba pare waye tim bu ko gaddu ki digg mbolo ma di soob de ni ña dem nga dama doon soob mbolo mee tax rek déedéet su baba mom wacc na waye yow ya gaddu haq yooyu yeb te lolu lu jara bahi xel la motax tax ku mosaan ñew ñëw ida xadarat saala an sahibiha hal alayhi daynun am laa fa in lam yakun alayhi daynun salla alayhi wa in kaana alayhi daynun qaala sallu ala saahibikum li daan yonent bi daan doxalee jaabiray wax genn góor dafa dee jaabira wax ñu sang ko sang ko defal ko gët andi ko yonent bi pour mu jullee ko ah ne ko dañoo bëgg nga jullee ko yonent bi jéegowu ñaari jéego ba pare laaj wala mu jéegowu benn jéegowu taxaw ne alayhi daynun ndax xam na bor ñu ne ko nga ah kay na ñaari dinaar dinaaraani la yore boo ko doon évaluer ci suñ jamono ji mooy deux cent mille yu manqué tuuti yonent bi wane gannaaw wëlbatiku su ko defee na abu qataadata ne ko gàddu naa bor yi ah ñaari dinaar yi ci la ko nag yonent bi door a nangoo jullee ci la wax ne qad awfa llahu xaqal garimi wa bari'a minha al mayit kon nag matal nga xaqi ki nga xam ne moo xamoon bor moom néew bi dañ na ca dara waratu ko kon nag nañ ci baxi xel ah fa salla ala yontu bi dara ko jullee su ah, ma baax da dalika ah su ma qaala baax dalika bi yow may ni maa faxala dinaaraani maa nan la ñaari dinaari def qultu innama maata am si qaala fa aada ilayhi min alqaddi fa qaala qad ah, qaddaytu qad qaddaytuhuma fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa aa baridat jildutuhu fekk na gis nga ba ko waa ji sax taxut mu baxi ko noona yonentu bi dem ba fa abu xataada ta garantaa yonentu bi nekkoon nag matal na xàqi ci xame bor ci xame bor bi néew bi dañ na ñu ne waaw waaw waaw yonentu bi jullee ko gannaaw si gi ñaari fan la laaj ñu ne ko ki ko garanti woon dee démb la génn àdduna mu dellu ca moom ñi laaj mu ne fay nañ ko nag fay nañ ko mu ne kon nag wax dëgg yàlla deram ba sedd na kon dana am jàmm kon dañuy bàyyi xel ci bor bu baax a baax a baax bu baax a baax a baax sawbaana wax ne yonentoo wax ne man faaraqa ruuxuhu jasadahu man faaraqa ruuxuhu jasadahu ah wa huwa bariun min salaasin daxala aljanna alxaluul alxuluul wa daylu wal kibru yonentu bi nee na képp koo xam ne sa ruuxu gi dafa teqalikum sa jëmm ji man faaraqa ruuxuhu jasadahu dana dañ mu dugg te fekk dañ na ci ñett yi ma bëgg a wax fekk ñett yi bañ ko vérifié xamu ci benn xal janna la ñu ne ko kan kan mu ne mooy sàcc sàcc ci màng lañuy tuddee xulul moom la alquran euh, di wax ne wa man yaxlul yaati bi ma xalla yowma alqiyamati mu ne ku dee ñu vérifié la xamee xoo bor aljaana nga jëm ku dee ñu vérifié sa xol bi rëy nekku ci aljaana nga jëm waaye yore bor rëy dagalee xalal yi sàcc yu dul jeex lu seede ya bëri bëri safara nga jëm loolu yonent bi wax motax mune man akasa amwalan nasi yuridu ada adallahu halu wa man akasa amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu allah kep ku jëlax la lu ni da danga lekk waaye yaa ngi xamee fay yalla mo lay dimbalé ba nga fay lu bor ba reey reey comme ya nga xamee yéene fay rek da nga fay waye mune kep ko koo ni da nga lek hal li jàmbur yi fas ca ja dana tasaaroo te doo ci jëriñu dara kon tamit jar na bàyyi xel tabaarakallaahu dafay dugg ci ñett yam daan wax ne man tasawaja imraatan ala sadaqin wa huwa yanwi an laa yuaddiyahu ilayha fa huwa saanin wa man adaana daynan fa huwa yanwi an laa yuaddiyahu ila saahibihi ahbasahu qaala fa huwa saariqun yonent bi nee na ku takk soxna xam loo joxe ki kan nga am la ca def amoo yéene joxe la ca def di sëy ak soxna sa njaalukat nga képp koo xam ne ngaa leb xamoo yéene fay ki nga leb yonent bi nee na sàcc nga kon yooyu yëpp jar naa daw loolu leb na nga xam ne yéene fay nit ñi seeni xalal lu xama xam solo la kon nag aayatu doy ne ngoog muy bor nekk aaya boo xam ne bu xam xam solo la bu tënk ay njëriñ yu bëree bëree bëree bari la su ko defee nañ ciy baxi xel bu ngeen lebatee fay leen nit ñi seen xàq yi su ko defee mooy tax ngeen mën a sooywu bu ëllëgee fii ci àdduna tamit ëllëg tamit tamit ci àllaaxira daanaki jàngale moom yonentu ba ci jàngale benn góor sakara rajulan min bani israil saala baax bani israil an yuslifahu alfa dinaarin fa qaala itini bi shuhada mu ne génn góor ci banu israil dafa demoon di leb junney dinaar ci benn mbokkam ci waa banu boo ko ma ne ko d'accord andil ma ay seede yu ko mën a seede rek waaje nag ne ko kafa billaahi shahidan yàlla doy na seede mu ne ko kon indil ma kula la mën a garante boo ma fayut jàngkat la te jàngkat bu kàccoor la mu ne ko kafa billahi kafilan yàlla doy na ci garante mu ne ko waaw kon nag wax nga dëgg mu jëla junne dinaar ya jox ko ko mu jëm ab diir waaja dugg ca géej dafa tukki ba mu demee nekkoon mool demoon ca géej rek fa xaajatahu markaban yarkabuhu wa yaqdimu alayhi lil ajal alladi fa lam yajid markaban fa axasa xasabatan fa naqaraha fa adxala fiihi alfa dinaarin ndaw ko maandu léegi nag waaj dem dugg sa géej ga di liggéey ba heure ba jot mu xam lu mu war a mën a fayee bëgg a ñëw amul gaal gu ko war a mën a indi mu jël benn bant xar ko jël xaalis ba takk ko ca ba nga xam ne xaalis bi du ko du ko mën a yàq du ko mën a yàq bind ca ne yóbbul leen ma ko mu dem ca boromam bu jël ko sànni ko sànni ko ci géej gi rek génn ca ne ko yow yàlla yàlla nga ma dimbale lii ba mu dem ca kama ko lebaloon ndax daal yaw yaa doo yaa ma garante woon yaa ma seede léegi nag damaa bëgg nga dimbali ma lii dem ci boromam ne allahumma innaka ta'lamu anni tasallaftu fulanan alf dinarin fa saalani kafilan fa qultu kafa billahi kafilan faraddi yadika fa saalani shahidan fa qultu kafa billahi shahidan faraddi yadika yow nak xam nga ne fi ma nek sonu na la yow yàlla maa lay seetloo ne waji dafa ma lebalon lebaloon ne dinar ne na ko tal garante mu ne ko yaay sama garante mu ne ma naa ko tal seede mu ne ko doy nga seede xam nga ne fi ma nekk mënumaa dem fay ko te waaye li ma ko mën a fay nii dem te nag diir biñ ko waxoon jot na mu jël mbir ma takk ko ci benn xànq benn bois sànni ko ci géej gi wa muy dem di daw di dem di dem di dem ba ca dëkk waaja fa qaraja rajulu allazi kaana aslafahu yanzuru laala markaban qad jaa bi maalihi moom nag léegi mu ba mu demee ba diir ba jot rek muy dem ca tefes ga pour di xaar waaja ne waaja de xanaa léegi tey mu war a ñëw wala bu ñëwut ka mu yóbbu affaire ba léegi tey mu ñëw rek mu gis benn bant fa isal xasabatu lati fiha al maalu fa aqataha li ahlihi mu jël ko def ko muy matt bëggoon koo yóbbu pour taxan ko jox ko waa soxnaam yi ñu ñu ñu toggee ca falamma nasaraha wajada al maala wa saxiifa suma qadima allati kaana aslafahu wa ataa bi alfi dinaarin wa qaala wallahi ma ziltu jaahidan fi talabi markabin li maanaam léegi nag ba mu defee lu waa ji hubbi bant bi rek dafa ko bëggoon a jox pour gaa yi taxanee ko mu xool ko rek fekk fa xaalis ba ak leetar ba yàggul dara waaja ko lebaloon tamit jam lebaloon ñëwaat indi junney dinaar ne ko man de defe naa pexe mu nekk pour ñëw fay si la waa ne ko man jot naa ci xaalis bu yàgg jotuma ci mu wax ko fim jaar bind ko fam ko jaarale ci bant beeg yepp mu ne ko jot naa ca jot naa ca mi ngi nii boo xeboo jëlaat sa xaalis bi nga bëgg ma fayaha kon gis nga yalla rek mo yalla li dal xisa bu heme heme xéemee la ku mandu la ab kat la nak ko xamni ni yaa ngi nit waji ne la damay xuti seede mu ne ko yalla doyna na seede damay xut damay xuti ku mu ne ko yalla doyna garant mu jël ko hutal ko dir diir ba jot fekk la ci bitim rew mënoo ñëw waaye xaalis bi ma nga fa nga takk ko def ko ci ak genn ak matt bind ca sànni ko ci géej gi loola dem ku ne mënoon na koo for mënoon naa suuf mënoon naa yàqu ba yàlla teg ko ca loxol ka ko le ka la lebaloon xam nga ne loolu yàlla dong dong dong ma ko man kon nag tabaarakallaahu nañuy rafetal jëflante nga xam xéene ju rafet ko xam xéene ju rafet yàlla mottali la ko kon da ngay xéene li nga bëgg la nga mënut nga baxee ko yàlla yàlla dana ko matal moo tax euh, yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam sàgganewut kenn ba tax bari na fi sax ñaan ak ku amee bor mënoo fay benn góor gu ñu tuddee àll yi moo ñëw ci moom moo koy nettali àll yi mu ne dafa amoon ku njotoo ana mu kaatiban jaahu dafa njotoo ndeysaanam dafa njotoo ak ak jaamam xam naa war a fay amul lu fayee mu ñëw ci yonantu bi ne ko man de damaa njotoo am yi nay fay te mënumaa fay yonent bi ne kaay ma waxal la ay baat boo ko saxoo yi léegi tey nga xam xalal yoo a njotoo waaw waaw donte da ngaa xamee woon bor bu toll ni doj yi da ko fay mu ne ko lan la mu ne ko ne allahuma allahuma kfinii bi xalaalika xan xaraamika wa agninii bi fadlika xam man siwaaka yonent bi ne ba mu ko joxee joxal nañu ko ñun ñëpp de képp ko xamee bor di jàng lii balaa yàgg sa bor yépp danga nga ko fay allahumma kfini bi xalaalika an xaraamika wa aghnini bi fadlika amman siwaaka xàll yi mu ne waaj a taqoo lii ba muy yàgg ak mu mën a jot lam xamee lu nit ki fekk yoon toon ak allah uallimaka kalimatin dégg nga allamahi allamanihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xàll yi ko wax xàll yi moo wax waajo ba mu ñëwee ne ko dama bëgg njot mu ne kaay ma wax la baat yoo xam yonentu ma ko waxoon mu ne ko lan la walaw kaana alayka misla jabalin ah, da nga ko mën a fay léegi nag mu jox ko ko mu ne ko ñaan allahuma ikfini bi xalaali xalaali wax ne ni faddi xaman si waa ko yonentu nee na koo xamee bor nga jàngali yàlla dina la maye loo fay àlli jox ko waaja ba mu yàgg ak mu mën a fay njotam ka anas ibnu malik mu ne yonentu wax na li muaaz ibnu jabal allah uallimak allah uallimuka duha an tadoo bihi law kaana alayka misla jabali uhudin daynan la abdaahu laahu anka yow Muaaz doo ñëw ma jox la baat yoo xam ne boo ko waxee boo xamee loon bor bu day ni jabalul Uhud tamit da ko mën a fay waaye xam nga yéen borom bor yi déglu leen ma de commerçant yu bari bor rek dem siin di leb rek yéen a may déglu yéen bureaucrate yi mu ci bëri bor rek yéen borom entreprise yi mu ci bëri bor rek lañuy dundee kon dee leen jàng allahumma kfinii bi xalaalika an xaraamika wa aghnini bi fadlika amman siwaaka yéen too ko wax waaye dee leen jàng lii tamit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 bu sa bor yi meloon ni jabalul uhud tamit yàlla na ko fay kon ñaan la goo xam-xam solo lu ci bëri alquran la ba ci innaka ala kulli shay'in qadir waaye rahman dunya wal aaxira wa rahimuhuma tu'tihuma man tasaaw irham nii rahmatan tughnini biha min rahmatin min siwaaka moom du alquran xadis la too ko wax kon lii ko ko jàng lu sa bor yi bëri bëri bëri bëri bëri insha allahu rabbi da nga ko fay doo koy jàng na mën ko jàng lim bu toon rek ñetti yoon suba ñetti yoon ngoon mbaa juróom-ñaari yoon suba mbaa juróom-ñaari yoon ngoon bu fekkee bor ba dafa tar ba jéggi dayoo nga di ko jàng fukki yoon ak benn suba fukki yoon ak ngoon loolu lépp lum rëy rëy nga xam ne fay saxoo lii di ko jàng da nga fay waaye nag boo koy jàng guddeeg ba ca taxamoo yéenay fay doo fay de da doon abou umamata ba mu xamee bor rek daw dem ca jàkka ja yonent bi ne ko gis naa la ci jàkka ji waxtu woo xam ne duhut waxtu wi ma la fi daan gis di mu ne ko ay bor dañoo ma dàqe mu jàngal ko ay baat ne ko dee ko jàng da nga dem nag tey góorgóor luy wuti boo ko boolee rek bu yàggee rek nga mën a fay waaye nag yoree bor na buti ci jàkka ja du ko doxal nag kon nag zakaatu dayni am na wa mimma yajibu maarifatuhu wa nataxaddasu an iddayni huwa maarifatu hal ala dayni zakatun in kaana ali zakat hal tajibu ala daini wala al madin waaye mooy kon war nañoo xam ne nag borkat booba léegi maa ngi la koy jàngal ci yàlla si amanu ila daayantum bi daynin ila jëli musaman bor moomu ndax asaka war na ca ak bu ca waree ki leb ak kiñ kiñ labal ku ca war a joxe asaka ja wala ndax amma annaha tajibu ala kilayhima fa hada lam yaqul bi ahadun am ñu wax ne ñoom ñaar ñëpp war a joxe asaka ja déedéet loolu njuumte la bor daal li ñu jëlee ci sayyidatuna Aïcha mu jëlee ko ci ba dafa ne laysa fii dayni sakaatun ay annaha la tajibu ala daa'imi wala almadini mu ne asaka mu ne bor asaka waru ca ki ko leble waru koo génnee kiñ ko lebal waru koo koo génnee ndax kiñ ko lebal muumu ko ka ko leble gisagu ca kon du ko génne wa ayada hada ibnu xasmin ibnu hasmin tamit loolu la dëgëral wa wajjaha qawluhum anna anna anna milka anna milka su ko defee kullun minhuma xayru taamin ñu ne moomeel ga matagul ci kenn ku ne te moo ko moomoon joxe na ko kii moomagut ko waaye jumhurul fuqaha yi daal ci biiri saxaaba ya tabaarakallah ak ñeneen féete woon gannaaw dañoo wax ne daw bor ñaari xeet la mooy bor bu ñu yaakaar ak jooxeem bor buñ yaakaar ak jooxee nag mooy ki nga ko lebal borom borom alal la de mën naa fay de te boole ko ku rafet jikko la boobu bor daal la ëpp ci fuqaaw yi dañuy wax da ko war a génne asaka ndax bor boo xam ne ki nga ko lebal borom alal la mën naa fay te boole ko tamit rafet na jikko du lekk xal li jàmbur kooka kay booy defaat inventaire na ko calculer xaale ndax mi ngi mel ni ngi ci sa poos am na ñoo xam ne luñ la xameel boo xeeboon mi ngi mel ni mi sa poos. loolu lañ gëm dañoo wax ne ah daynun marjuwul ada bi an kaana ala musirin muqirin bi dayni xoomal nga te saxal nga bor ba fa haada ah yuajjilu sakaatuhu da ngay gaawee asakaam maa maalihi alxaadir fi kulli hawlin saa yooy génnee asaka bor boobu da nga koy génnee xale asaka ndax kat abu ubaydata loolu la solo jëlee ko ca Omar jëlee ko ca Sidna Omar jëlee ko ca Sidna Ousmane jëlee ko ca Ibnu Omar jëlee ko ca Jaabir Ibnu Abdallah ci ñi ñëpp ay saxaaba la loolu lañ gëm taabiin yi tamit dëppoo nañ ca ak ñoom Jaabir Ibnu Saydin taabiin loolu la wax Mujaahid taabiin loolu la wax Ibrahima loolu la wax Maymuna loolu la wax Maymun Ibnu Mahran loolu la wax. ñaareelu xeet wa nag mooy bor boo xam ne yaakaaroo jot ca ndax ki nga ko lebal ku ñàkk la. en même temps bu xamee tamit dafa wér di bor ba ne xamee lu ma la dara wala même bu ko saxalee ti ma manta fay kooku nag moom ah, ko boobu bor daal wax dëgg yàlla doo ko génneel gul asaka jamono ji ngay génnee doo ko génneel gul asaka de ah, bu njëkk ba da nga koy kon al awalu an yusaqiyahu ida li lima mada min asinin ñii ne bor boobu nga xam ne yaakaaroo jot ca lu mu fa yàgg yàgg yàgg xam na fa ay xat yow daal ñàkk cee jot nga yaakaaroon far nga jot ca kon ku mel ni ibnu aliyu ak ibnu abbas dafay wax ne xat yam yam nekk ca loxol waa ji yëpp ngay génne asaka ñenn ngeen ne déedéet annahu yuzakkihi ida qabalu li santil waahida soo demee ba jot ca lu mu fa yàgg-yàgg doonte fukki xat la menn yoon rek nga cay génne asaka loolu mooy masabu xasan mooy masabu omar ibnu abdul aziz loolu mooy masabu imaamu malik loolu moo nekk mu dawala loolu moo nekk ci mu watta kon wax jooju moo gën a wér ñetteelu xaaj ba nag dañoo wax ne sa ñoom laa sakaata alayhi li shay'in doo ca génnee dara bor ba nga yaakaaru fayekook bor bi nga yaakaaru toon ak yëpp doo ca du génne dara bis boo ca jotee nga koy door a moom da nga koy jubale ren ba déwén boo ci demee ba déwén ba déwén nag nga koy door di génne asaka kon ñetti wax yi yëpp boo ci sukkandiku waaye bi ci gën a dëgër mooy bi imaam Malik tànn bor boo xam ne daal ki nga ko séq saxal na bor ba te xam na lu mu te rafet na jikko kooku moom booy def inventaire da ko da booy boo nga nga nga calculé xaale ko rek su fekkee ne nag ki nga ko lebal rafetul jikko wala miin na bor ba wala même saxal na ko waaye mënta fay bàyyil ba jot ca saa yoo fi lu mu yàgg yàgg nga génneel ko wenn yoon asaka wax jooju daal moom la Malick tànn wax jooju daal moo gën a jamtalu timit kon nag gorongoog ay bu gudd la mënta jeex mukk ci benn waxtaan xam naa ci kartanal yàlla boo ma toppee suba ma sof ak yow tamit li aju ci yaay war si naam isaa daayantum bi day nin ilaa ajalin musamman faktubuuhu buñ ci ñëwaatee nag beneen yoon ci kàttanal yàlla dana jeex suratul baqara aaya yi ci nekk yëpp jeex yaayu waay jeex muy fukk ak benn ma door a dugg yow ci Al Imran allah suba ci waxtu bi lay doon incha allah. ginnaaw bi nga seetaane vidéo ba pare bu fekkee abonné ko na nga abonné te bës tuus cloche bi ndax bu ñu dugalee vidéo nga